asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru kooru tedd wi am mbégte siyaare si suñu kilifa yi muy sëriñ Abdou Samad moom Cheikh Souhaïbou Mbacké mu Xaadimu Rasuul bi nga xam ne alaaji Cheikh Dia ak juróom-benn fukki réew ak ñett yu nekkoon yu demoon Dubaay daal def moom mu jóge ci Touba yàlla def mu nekk deuxième bi war a ñëw Sénégal suba ak jàmm insha allahu gannaaw suba ci altine ji mu war a jàll si Touba te war a barañ cee def lenn moo tax ñëw ci suñu Abdou ànd ak way juróom bi nga xam ne baayam bàyyi alaay Cheikh Dia muy seen Moor Mbaaxe ja mii ngeen di jàkkaar mooy way juru alaay Cheikh Dia ma ne ca Dubaay su Ibrahima di maa ko doon jàngal nag moom la àndal foofa mu ànd ak mbokkam mi doomi bàyyam sëriñ Mouhamed Dia ànd ak Serigne Mouhamed Dia moom it ànd ak Mouhamadul Fadilu si bindikatu Xaadim Rasul kon ko xam-xam comme Serigne Samat muy waaw di loolu di wax ni koo taawil ñu ànd ko suñu suñu doom ji muy Serigne Saalihu si mu wattu woon alxuraan indi woon kaamil jamono yi moo ko ko indil nag ànd indil koy sama doom ji nga xam sama doom mag la muy Serigne Moustapha si suñu mbaayu la si xalifa si moolu xali si moo ko moo mooy wajuram mu jox ma ko moom moo ko doon euh, kon day ñoo ngi kàddu gi mm-hmm. ndax sëriñ Fallu mel na ni bu yëkkatee kàddoom rek mm-hmm. yóbbaale na sunu kàddu mm-hmm. waaye nag ñuy faral di wax ne boroom xam-xam yi ñoo koy wax rek ne al imtisaalu laa kon nañu jëfe ndigal rek sax Abdou Samad ñoo ngi lay nuyu yóbbu lislaam di la siyaara di la ñaanal nga yàgg fi ba lépp loo xam ne sa kilifa yu baax yi naaloon nañ ko nga yeggali ko teg ci sa naali bopp ndax loolu kat ñun daf ñoo war ndax day loo ñu euh, ji waaw ndax bërëb beekat biñ koy fàggu taroon na metti woon na jafe woon na nga jàpp ci ba yàlla dogal lii mu dogal kon ndam lu fa mën a am delluwaay ba la ndax bañ koy sàkku jëmm moo ne ñu bu ngeen demee ci Seex Abdu Samad son bu di da ngeen am booba daara ji mang ca tool ya di ñu waxtaanee Seex Ibrahim ba war a xaaj daara ji mu ñëw Tuuba am ku ñu naroon a aal sax kër am ku ñu ca génn ne ñu kër ku la aal kër moo la xañ kër dem leen ci Seex Abdu bu ngeen ko ko diisee da am kër goo moom sa bopp mm-hmm. yàlla def yàlla def boobu sëñ Seex Say mais di doomi Seex Abdoulaye Soy bu mm-hmm. doon suñu wóllëre mm-hmm. ci moom lañ ko jaaree mu jàppandi lool ba maa ngi koy nettali léegi mas nga ma fa fekk benn yoon daa yàgg waaye mooy jamono yi ñu koy door di sanc ba yàlla dogal ke sosoon daara ji tey di sunu way jur kiñ ko dippee muy sunu taaw di alxaaji Seex Ja miñ dippee maamam rahmatullahi alayhi daaw mu demoon jongante Sénico deux mille vingt un jël ñaareelu toogu ba kon loola ndamal Seex Abdou Samad Souhaïbou la yàlla yàlla miy dogal dogalaat ci mbaaxam ren jii ñu tànnaat ko Dubaay mu demaat sa jëlaat ñaareelu toogu ba laataa muy dem ñëw nañ fii waaye keroog daa guddi ba yàlla def gis gi jàppandiwut waaye ñu ne ki ñu fekk ne na ko sëñ bi yëg rek ak yëgam ko du yem ak ñàkk koo yëg ndax sañee su mukk mu jigee fi di dem eh, réew ak réew Seex Abdu Samad du ko yëg yàlla dogal la mu dogal loolu waral Sëriñ Fàllu mii ci taxawaayam ci yitteem mu jaral ko dox ay jéegu nam ko daan doxee ci ñi ñëwaat ba ci Cheikh Abdou Samad delloowaat ko loola moom mi nga xam ne béréb ba moo ko yëkkati woon teg ko ci suñ loxo di ko ñaanal bu baax mu mel ni nag kon ndamam ma ngi yokk ci alquran bu baax yëpp rek dem naa ci daara di nuyu mbokki ñu ne ci dëkk ni di mën naa ne ci turu sëñ nga xam ne dégg nga ko alxuraan dégg nga ko xam-xam hmm. waaye Serigne Mouhamed Xaban hmm. Alaaji Xaban mi nga xam ne mooy doomu Cheikh Mouhamed Fadil hmm. te ci liggéey bi te jiite mboolem daari alxuraan yi sëñ bi teg ko ci mboolem ñi aju ci rabita ak sëñ jaar yëpp seen tur di bégee ndam li nga xam ne Tuubaa amati na ko mm. te yàgg na ko am mm. ndax yàgg na yaakaar naa ne mm. bu koor jotee ndam loolu dana gën a fés du du du ndamu waaye sant la waaw ndamu wuñ waaye dañ ko sante waaye jàkk jàkk yi ci réew mi yëpp ku doon xool jàkk yi ñu fiy jànge alquran di ko naafila alquran te borom at yu néew di naafila yoonu murid du ci ñee kenn. Mm-hmm. <laughs> néew mu ñëw ci ëpp nag ndax duñ teggin. Mm-hmm. waaye yoonu murid du ci ñee kenn. Ah, waaw yaakaar naa kaamil loxo yi bind mm-hmm. di ko bind ba mu àgg. ci kayit. te borom bopp ko. bopp mooy bañ koo xam. loolu yaakaar naa yoonu murid buñ doon wàññi ñi ko def yoonu murid du ci ñee kenn. Ah, kon bu fekkoon dañuy dañuy dañuy dañuy jiiroo alxuraan. yoonu murid moom buñ sori. Ah, ndam yi ay ndam la. yoo xam ne foo xoolee gis ko. fa ndam bi dëkk. suñ tubaab moom gi moom moom moom alxuraan suñ borom moom loo ko ko mm-hmm. feeñ ci wet yëpp loolu ma feeñ ci mbirum alaaji bi mm-hmm. mm, jot naa bàyyam mm-hmm. ma xamal na man ne ñu ngi ci yoon mm, xam naa suba lañu yegg si Dakar mel ne ni xëy na dañ fay ngoon ak seet te alaaji Ablaye ja sonnoon na ca lool ci taxawu ko ak gunge ko kon war na koo gàttalu waaye waa Ndakaaru nag luñ ca def ci toppatoo ci yëg ak ci gàttal. Mm-hmm. Mm-hmm. la waral. ma gis ne kon waa Touba. ñun ñëpp war nañoo soññiku. Mm-hmm. bu yegg si fii. ñu gàttandu leen gàttandu boo xam ne dañuy xam ne ndamul sëñ Touba la sedd xolub sëñ Touba mi ngi dugg ci dëkk nii dem janaar ya. desim desim baax na. desim boobu it baax waaye euh, xam nañ ne. Euh, ndam la loo xam ne. Euh, lu sedd xolub sëñ Touba lay. bu ko defee nag. mu fekk si yeneen ndam. ki demoon Côte d'Ivoire. ak ki demoon. Maroc yooyu yëpp daje ci di doomi Touba di mm-hmm. doomi yoon bi da ndamu sëñ Touba mm-hmm. Mm-hmm. yëpp mën nañoo ànd nag gàttandu leen tatagal leen gertu leen uh, wane ci mbir mu rëy rëy loolu yàlla nag jaadu nag sëñ Touba jàmba ko dama am jàmba ko ah, ndax yaakaar naa du ñàkk léeg-léeg am yeneen ak xew-xew yi am te danañ gis yëg-yëg ak yëngutu bu ci am boo xam ne adduna yi kese rek la dara sëñ bi ne sëñ bi ci te danañ ci wane seen mbégte ba ñëpp yëg ko Mm-hmm. kon nag jàpp naa lu mel ni bu amee. Mm-hmm. alxuraan am ndam lu toll nii. Mm-hmm. jaadu na waa Tuubaa moom. boo ko keneen négligé waa Tuubaa am nañ ndam lu toll nii. sigariwu ci bëgg ci wane ci seen bopp ba ñëpp xam ne. amuñu lu Sëñ Tuubaa amuñu lu alxuraan te alxuraan am na ndam Sëñ Tuubaa am na ndam. kon nañ ko gàttandu teertu ko teral ko sagal ko. fonk ko ngir jëm sëñ Tuubaa mm-hmm. loolu maa ngi wax sama bopp sama mm-hmm. turu bopp mm-hmm. sëñ naa ko wax ak turu si Muntaxa ndax naa ne déggam lay doon ndax alxuraan lay dund xam-xam lay dund kon nag maa ngi leen di sant bu baax di soñ ñëpp ci teertu bi rek dañ ko teertu gàttandu ko gunge ko ba ca dal ko sagal ko loolu maa ngi koy ñaan sama bëgg tamit waaw jërë ngeen jëf yal nañ tase ngërëm si amiin yaa rabbal aalamiin bay bay ba ñëw bay ba bay damaa yaa man taxaala xannu walad taw bil umura sayxina abdi samad amin